ndeysaan Amoura Sarr moo ne woon ginnaaw waaye Reenu Guy moom la ñu jàkkaarlool moo nekk à gauche ci mbëru Lengs mi ngi noonu nañu yónni yàgg ndeysaan ñu ngay doxee wet di jëm ci saaku yi Reenu Guy ndeysaan moo jiital tànku càmmeñ waaye Amoura Sarr moo jiital tànku ndejoor ndeysaan ñu ngay wër-wërloo ñu ngay wërwërloo ñu ngay doxee wet waa mais mais reenu guy mi waane na de xoolee reenu guy yow mu ngaaj loxo ba reenu guy ak Amoura Sarr bu ñuy wax Amoura Sarr nag bu mag ba taxul ndaysaan reenu guy de mu ngi mel ni mën loo rek léeg-léeg mu dugal bopp bi ba mu yàgg génnewaat Elene Guy ak Amadou Sarr Amadou Sarr moo nekk écurie tefes gi waaye Elene Guy moo nekk écurie xam sa cosaan moo nekk écurie Guédiawaye mbooloo maa ngi tuub tey jégalu ndeysaan Elene Guy moo nekk à gauche Amadou Sarr moom la ñu jàkkaar lool ñu ngay dem na bay a dem daal di taxawaat ñu ngi lewtoo laalante wuñu songooguñu dóoraguñu defaguñu dara ñu ngi taxaw dina leen woo ci digg bi waawaaw waaw lépp day leer dégg nga yow mi tooñ nga naboj du seetaan dëgg la ñaari doom yu góor yi ndeysaan ak bi sifle waat na ndeysaan ci diggante Reenu Guy ak Amoura Ambulance Sarr moo nekk à waaye Reenu Guy mi ngi noonu ndeysaan mbokk yi Reenu Guy ak Ambulance Sarr Reenu Guy moo nekk à gauche waaye Ambulance Sarr moo nekk à droite ndeysaan leng si nooyeetul mi ngi taxaw rek jàkkaarloog ñaari mbër Ambulance Sané jiital tànku ndeyjoor Reenu Guy moo jiital tànku càmmeñ ñu laalante ñaari mbër yi bëreeguñu de ñaari mbër yi bëreeguñu rek waaye dafa mel ni am na lu ñu bëgg waaw waaw Reenu Guy waaye Ambulance Sané sànni na jàppante ay loxo Ambulance sànni na. ambulance ambulance ambulance taxaw na ñu ngay dóorante dóoral dóor dóoral ma dóor Reenu Guy dóor na ambulance saa dóor na dóor waaw mais mais ambulance mi ñeme na ko de ambulance ay waay ambulance ambulance Reenu Guy Reenu Guy li ngay dóor dalul ba duñ la dóor nga daanu Reenu Guy li ngay dóor dalul Reenu Guy dinañ la dóor nga daanu Ambulance Sane moo la gën a liir li ngay def tee na sa loxo dina la doon tee sa loxo dina la doon jàppante nañu jàppante nañu Ambulance Sane xam na ni fa mu làmb nooy na mu ngay doon xam na ni doon a ko ciy génnee ndeysaan Ambulance Sane na bëgg na ko fàq li nga bëgg a def du yomb dañ lay yëkkati ba ci kaw dinañ lay yëkkati da lay yëkkati ci suuf laay laa xëy la laa mënu lekk sama daan na mënu lekk sama daan na waaye lii na waaw mais eh mais Ambulance Sarr mi doy na waar ah. da koo taru mais def. waaw Ambulance Sarr na. rey na ko rey na ko gaañ na ko. ay waay gaañ na ko ay waay di nga gaañ mbër mi. daan na jël bu rëy. mënu lex sa daan mënu lex. waa dafa neex. waaw dafa neex ndeysaan. ndeysaan mën a Legs daan na mais Legs mais Legs sa a daan ndax man doomu Pikine laa tey sama père sama père daf ma conseil ak père Zil Balde ak Tidiane Diop ak Cheikh Ndour ma ànd samay mag. Eh, di nga sant di nga sant la. man li ma bëre mooy Ndiaga Diop daf ma conseil ne ma fils na lu topp sa ginnaaw moog feeraay ne ma carrément li ngay bëre ma ko teg ci yoon. bu ci bañ dara tey. mais da laa woo ci xeex nga wuyu ko ci. ma wuyu ko ci parce que xale laa. dañoo mu ne ma man mais ñu xam dëgg xam nañ xale bu ndaw laa. 94 laa. billahi wallahi tallahi. ñaata combat nga def ñaata combat nga def. man maa ngi def 3 combats. ñaata victoire 3 victoire. Uh-huh. benn défaite. boo jugee fii fu ma jëm ku ne xam nga ko. Ada Fass qualifié ah. ku daan tolloon naa la. Oh. Ada tey dama duy stade bi tey dama duy stade bi boo leen bëggee ñu dem Pikine ngeen gis lu fa ma lambaay yaa ngi lambaay biran nu baa ngi ci mbul maa jooja degen ma ca lu rëy la maa jara bak ñoo jara falal ñoo jor sax yu tàkk ñoo jara way te ñoo dim waagu ñaay gisal